ci fan yu tedd yi nga xam ne ci la ñu nekk rawatina bis bu màgg wala guddi gu tedd gi nga xamante ni moom la ñu dëgmal te di ko waajal. tax na seen site bii di Rafah TV sàkk ay jotaay yu waxtaan yu mu duppee yoonu gàmm di ci dalal ay boromi xam-xam ñuy fa yéene di fàttaliku ak a nafar lenn nat ci diggante Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay jikkoom ak ndono li nga xamante ni bàyyi na ko fi waaye len nat itam ci mbindum mag ñi. na nak suñu mak mi di Maulana al Abdul khadim Cheikhuna Cheikh Ahmadul khadim diggam ak yenen tibi sallallahu alayhi wasallam rawati na nak ci wàll ga nga xamanteni mo ci jëm ci kagn ak bak ak tag jëm ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñu am mbégte mu reuy nak dalal ci borom xam-xam bo xamanteni ku ràññeeku la ci dëkk bi di wuyo ci serigne Ahmadou mbake darul mu'ti ginaaw ba la ziyaara mbake di la ndokkel ci wéwi waye ci fan yu tedd yi nga xamné ci lañu nekk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 muy digënté bo xamni bu uh, yaatu la ndax sëñ tuba mané né dafa aduna da ko duy bu fess ci tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam waxam jëp tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam def na ci tam ay diwan yo xamni yu muccu ayib la yu muccu ndenn la ndenn la yo xamni amul ndenn ci rafetaay akub taar ak boleh mbooleem cafka yi nga xamni mom lañ wax muhassinat badiiya jamaliya yi nga xamne mom lañu xam ci lugal arabiya yeb mu dambe ko ci bir euh, tag yi mu tag rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam suñ tubaa yàlla da ko jagleloon jëmmi lakk yi mom mu am ci tawfiq di wa di ci wax wax jo xamni ni ñe ko wala mu doon ñu doon ko jang seen dund yëpp ñu jéxal ko sax ñu fi ñu ci mom ci dem na ba xam ko ba waxal ko boppam wax ne ila maliki qad xud qad xudtu fi xidmati nabi ajiban daha man qad sama fi lugatihi wax na itam ne qawliya qawlun yuxjilu lmarjaana waddurra walyaquuta wassajjaana maanaam ay waxam ci lugal arabiya ni mu rafete ni mu taaroo ni mu feese dell ak mboolem yi nga xam ne mooy neexal wax ci banqaas yi nga xam ne moom lañuy ñuy jàngale muy ilmul balaax ak banqaas yi ne ci biiram muy baa maani ak bayaan ak badia yépp yëpp dafa fees dell ci mbindum mbindum mbindum sëriñ bi yàlla def itam tagg woowu kenn rek la ko jagleel muy rasulullahi sallallahu alayhi wa moom daa jàppoon ne tagg keneen ku may rasul sallallahu alayhi wa wax ju yàqu la داع ثناء لم يكن مدح النبي لم يكن لغيره من من قبل انا كنن كدو رسول الله دا امول درجه جو اغتي موم مود لا تاغ مو سنج وا وتاخ كن رك لون تاغ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخنا ني داع امتداء داع امتداء لم يقل في المقتفى انا جيب واخي تاغ جو خامني waxu ñuko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena wax joji sankuna motax mu daa wax ne yàlla defal na ko mu jekku làkk wi man cee wax wax ju neex waaye wax ju neex jooju kenn rek moo ko moom muy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamilu madaxi li jamilin abhaja salla alayhi xayru baaqin bahaja tagg yu mu doon tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itam da koo boole woon akuk cofeel xol boo xam ne dafa fees dell ak bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam madaxtu man maa in lahu mujaari madha muhibbin wal karimu jaari maanaam taggi taggiinu aji sopp cofeel goo xam ni yàlla kese moo taxoon nga xam ne dara lalu ko daray adduna wala bëgg jenn daraja taxutoon mu ànd ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daani ila madhi nabi hubbu zaatihi maanaam bëgg jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kese moo ko taxoon di tagg am na fenn fu wax ne daani ila madhi nabi zaydu bishrihi li tax muy tagg mooy bëgg mbégteem di yokk moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu seetloo eh, am na fu wax sax ne ñi nga xam ne ñoo njëkkoon di way ci waykati arab yi leen daa tax di way xam nga arab yi moom bu ñu seetloo ci saanu madh xam nga rasa maanaam képp koo xam ne jóge na fi rasa lañ koy tuddee eh, waaye nag bu dee rasul la sallallahu alayhi mooy madax arab yi itam yàgg nañoo tagg waaye wax naabaxa naabaxa zubiyaan yi ba mu dalee di tagg buur ba mu dajaloon yaakaar naa Nu'maan eh, moom i dem jox ko ci xéwal yu bare bari foofee la tagg ak alal ak joxlante maanaam ak mbirum adduna lëkkaloo nga xam ne nit ñi de waaw ci lañ tàmbali waykat yi di way wa shu'araa'u yatba'uhumul ghaawuuna ko suñu borom waxee tabaraka wa taala ci alquran nga xam ne tag gi dañ ciy wut dara suñ tubaa nag dalaa wax ne moom tag gi mu tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ciy wutut dara moom walam urid zahrata dunya allati qatafat yada zuhairin bima athna min abyad balim tadaxtuka ya mawlaaya mubtagiyan minka rida na bëgg rasulullahi garab rek moo ko taxoon di tàgg waaye daray àdduna dox ko woon a jóg daray àdduna itam dëkku ko ci woon sëriñ bi itam ni mu doon tagg yonente bi lu lu lu xar baaxe la ndax danaa wax ne jëmmam jëpp a maase di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun salla alayhi llahu yamdaxuhu kulli kama alaahu madaxahu kulli bila istisnaa'i li wajhi man bihi maha anaayi yubajjilu kulli kullaka al yawma maa xadin wa insha rabbi laa waral dexe dexra daa wari nga xam ne lépp ba ma maase di tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi da ko defoon bor ci boppam mm-hmm. nga xam ne moom da ko ameloon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. dañuy wax ne damintu lil muxtaari kulla aami dayna al madaixi ila ximaami nga xam ne daa gàlloo woon borub tagg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alayya ليل المدح والصلاة له لحبه إلى الوفاة يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي عند هو ورا لون تجمم دي تج رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمي جس نعم خاد كنيارة نيارة خاد جرم بين ويري تج لي رسول الله صلى الله عليه وسلم جم ولم بين نمي مين بين جرم بين ويري جتوب جل تي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي واحد سلاط ستة مدح ستة تاتيه بتة maa tisaay jëmmi tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lu rëy ci sëñ Tuubaa léeg ñu gis mu wax ne man mooy sama mooy sama koom mooy sama màng ganimati taxsinu mad madxil mujtaba maanaam li ma am ci àdduna lépp mooy rafetal rafetal tagg bi may tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam duna itixaadi fiddatan wa dahaba man hmm. la ko daan ne la مدح رسول الله صلى الله عليه بالآل ومن قفاه مرتبتي وزينتي وجاهي به أروم ما لدى الإله أحنا يعني موي من درجة موي من بتار موم لاي مطلقو موم تق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمنا فهم وحنا آه، على أحمد المختار من مدحه زيي موي سما واجتاي يا نخاني موم لاي maanaam moom lay waaje madi madixuhu zaadi ilal jinaani wax na mooy yóbbalam itam jëm ajana kon tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon lépp ci moom mm-hmm. moo doon lépp ci moom wax am na fu wax sax ne mooy ngànnaayam yi nga xam ne moom lay xeex mm-hmm. eh, armaax yi wa asiyaaf yi am na fi wax ne sayfiya madxul muntaqa laythil xasuud nga xam ne mooy ngànnaayam li nga xam ne moom lay xeex ak noonu yi mom tag yonent bi mën dañ ne moy ay waxam léppam dafa dugg ci biir tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam amna fu wax ne madxu nabiyil muntaqa kalami wa fil ida anka min al kilaami maanaam jemi ay waxam léppam tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak kagn ko ak julli ci mom ak lu aju ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay waxam dara da ko ci gënal motax mu daa wax ne jëmmi tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam manhaj lay manhaj la ci mom amna fu wax ne nabiyun rasulun qad nafa kull baatili فمدح النبي لله لليوم منهج يعني موي منهجم آه، امنا فين فو واخني وذكر فضله غدا لي منهجا ما تود غنيلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولو منهج دتي موم موي منهج ديغا دوخينم اك دوندم اك نيمي جامو يالا اك جامو يالا دتي موم امنا فين فو واخني موي مذهبم صاح لغير ربي بالنبي لم اذهب والمدح صار ديدني ومذهبي موي مذهبم am na fenn foo xam ne day wax ne jëmmi tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mooy sariyaam mooy suluukam mooy aadaam aslamtu nafsi li rabbin jalla an waladin maa alladi madaxuhu sharci wa aadaati maanaam tagg rasulullah mooy léppam kon madxu nabiyi almustafa suluuki qaada liya alilma maa tamliki madixuka yaa xayra albaraya ibadatun yanaalu bihi lfawza alladi daama yamdaxu nga ne ak jaamu yàlla la woon goo xam ne mooy manhajam di mazhabam di nguuram di sharia di aljanaam am na fu mu waxee itam mooy sama aljana madxu rasulillahi saara mulki wa jannati wa junnati wa fulki kon eh, jëmmi tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Sëñ Tuubaa dara wax ne mën mhm. turu rasulillahi sallallahu alayhi wa dolli ci diko tag wala nga julli ci mom da wax ne lolou da wax ne lolou du ndaw taw feexi suñu borom la mom am ngeem ko am da wax ne lolou taw la suñu borom juk ko defal ndax da wax ne dalika fadlullahi dicru nabiyi lmustapha bilmadxi aw salati qismati wa ribhi ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده minan dalika ذلك لم bi بالتحيل بل نلته بمحض التخصيص العلي ali xaa ne jagleeg suñu borom ci la ko amee waaye loolu hmm. ay pexe mayewu ko daalika lam ajid bi taxayuli tagg yi nag hmm, hmm. wuute naag yeneen tagg ay teggin moo moo koy fees tafiqtu unaadil Mustafa daa taaddubi fu mu tàmbalee di wax lu jëm ci rasulullahi rek gis nga teggin day yeesalaat ay tegginam diggantam ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li wax ne li bashirin saana kulli ma saana kulli raxi madihi ma al aadaabi wal ilmi wa saay maanaam jëmmi teggin moom la boole woon jëmmi tag gi mi tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam da da cee génne woon mbooleem luy sikki wax xam nga sëñ bi mën xajam ci ci way ak ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wuuteeg mën xaj yëpp benn ni muy tàmbalee wuute na ko ñëpp ndax buy tàmbali faw mu tàmbalee lu mel ne bismillahi rahmaani rahim ak xamdala wala xasbala salaatu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yooyu lay tàmbalee maanaam du ñëw rek dugg ci wax ji def xësal xësal moom dafa da koo génne woon ci waxam wax na ne moom xëyyabtu anzami an il fuduli al yowma lillahi wa li rasuli xëyyabtu anzami an il taxazuli bi dimani li matxi xayri mursali moo tax ay waxam daw ci dugal xësal xësal mooy arab yi buñ mësaa tàmbali ay way dañ ko tàmbalee tudd ay gent yu yàgg ak ñu ñu sopp woon ak ñu ñu demee yooyu mu da ko dindi woon ci waxam ndax dara wax ne tag gi may tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu duma ko ci tàbbal mukk moo tax turu yàlla lay tàmbalee moo tax benn sant yàlla ak junni julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam lay tàmbalee biir xasida gi li ci ëpp dana ci wax lu lu junju moom mi koy way xadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala mustaqaati xidma li rasulullah sallallahu alayhi wasallam dana ko ci junju ba tey ci biir xasida gi ay ñaan yu bari da ci da ci da koy ràññi koo maanaam sëñ bi mbindam li ko ràññ li ko ràññale yeneen yi mooy julli ci yonte bi da ci bari ndax fu tudd tuddee yonte bi sallallahu alayhi mu julli ci moom loolu moom dafa bokk ci yim jaayante maanaam tudd yonte bi te julliwul ci moom doo te bu jullee ci moom it di ci ëpp dana ci ñaan doo doo doo loolu léeg-léeg mu dugal ci yoo xam ne ci moom rek daana nga koy fekk mooy mooy xisaabul eh, yi nga xam lu ma ne kax nafa kax li xëyri sarmadan xayru shafiin junj yooyu nga xam ne ay xaraf ay adat adat lay junju eh, loolu li ci ëpp na ko itam nekk noonu itam jëmmi buy jeexal xasida gi li ci ëpp salaatu koy jeexale julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu des yenn te xasida yu tuuti rek lañ gis ba mujj ga jeexalewu ko salaatu ala rasulillah lu mel ne li rabbin gafurin qad maha anniya dhanba wa anni nafa iblisa fi bahri ma yomba ba mu koy jeexal dafa wax ne laka shukru wa ridwanu minni wa shahidi raqibun atidun fil jazirati ma yomba nga xam ne ak cant la ko jeexale waaye xasida yi ci des yëpp boo seetlu lu ci ëpp bokk salaatu ala nabi la koy jeexale moo xam xasida yi xam-xam yi la ba ci xasida tagg yi ak xasida salaatu ala rasul am na yenn xasida ni ma ko wax yoo xam du ko jeex du ko jeexal lu mel ne tey eh, madaxtu nabiyal muntaqa nuura azmana ak lu mel ne bismil ilahi ku ni yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madad yooyu noonu moom jeexal ba mën naa bañ a nekk salaatu ala ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaye li ëpp ci xasida yi tagg yi ak xasida salaatu yi moom moom moom moom biir xasida gi day fees dell ak salaatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee itam bokk na ci li nga xam ne moom la ràññee ko mooy turi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam turi yonente bi sëñ bi da koy tudd lu baree baree bari ci xeeti turam yi am yépp xam nga eh, lenn ci borom xam-xam yi adab yi wala ma adab wax ne maanaam jëmmi tagg nit la ci ëpp solo mooy nga jëm ci fadailu nafsi mooy xeeti jikko yi nga xam ne moom la ràññikoo waaye lim bokkale nga xam ne mboolem nit ñëpp ko am loolu moom des ci tagg nit waaye loolu du ñëpp ci ànd am borom xam maanaam Sëriñ Tuubaa moom yëpp la boole wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahara day tagg bi waaye day boole jikko yi nga xam ne ak melo yi nga xam ne moom la yonente bi làmboo waaye da ciy boole itam xeeti melo yi bind yi nga xam ne moom la suñu borom binde rasulullah sallallahu alayhi wa sallam جميل المحيا ذكي الحجا منبر معاد لكل طريح بن شر لو يتم جمي يونت صلى الله عليه وسلم بولم تروم ييب تاغنا كو تي داكوي امنا وودال كو سا اي توري بحر البحور بدر البدور شمس الشموس راس الرؤوس ليث العدا شاف العدا ضياء الدور غيث الجنة المهتدي النار المعتدي ak junnatun yu xeeti waxin yooyu masayaka yaa kulli la dal kulli qad jarat walakinaha jallat an ash-shi'ri wa nazmi nga xam ne xeeti turi yonent bi yëpp lay tudd boole koog nag wutal ko ay sifaati boppam yoo xam ne ci moom rek nga koy déggee noo ngi jéglu bu baax a baax jërëjëf sëriñ Ahmadou mbake ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ni dégtal nga ñu ko ñi ngi am mbégte bu baax a baax a baax ci euh, waxtaan wi ni nga ko nosee ba mu doon loo xamante ni méngoon ak li ñu doon xaar ci yow xam naa ne ci ñaari kàddu rek yu gàtt nga tàggatoo ak suñu bokki téléspectateurs yi. waaw jërëjëf bëggoon na maa jeexal ci wax ne Sëñ mhm. bokk na ci maanaam tagg yonente bi ñor gi mu ko ñor. Mhm. li koy ràññeetle mooy fu mu fu mu wàcc rek tagg na fa yonente bi sallallahu alayhi انا برب مو باكر رك في يونس بن الله بوخلو تي ميل دا نغيس ني على المصطفى والمدح رافقني في كل شيء فحبل الوسد قد جدلا اي ندر مثلا بيم دمي ندر غيس ني الى النبي المصطفى عند ندري وجهت مدحا قد ازال كذري بيم دمي دكار غيس ني للمنتقى وجهت في الدكار مدحا به فارقني المكر bam doon lu melni konakiri Conakry lil mujtaba madhi la daa Conakry kama hadaniya bila manakiri muy dem rek garam basa hadaniya alladhi adu bi habasa anni bi madhi albarri fi garam basa ilayya qada mashtaha kullu wali madhi khair alqalq fi li bar wali man beurep bum dem rek dana fa tagg rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil lil mustafa wajjahtu inda almushrikin madhan bihi ghada'i hidahu muhdaki muhlakin mi ngoog kon tagg yonente bi moo doon li gën a neex ci moom ni ma ko waxee tam ak tayel daw ko ci tàbbal mm-hmm. yokkat waxi noppi waaye nag eh, lii suñ borom xas xasee wala mu sikke ko waykat yi wa shuaraau yatbacuhum algaawuuna alam tara annahum fi kulli waadi yahimuuna wa annahum yaquluuna maa laa yafaluuna mm-hmm. loolu suñ tuwaa da wax moom yàlla musal na ko ci lam tanxu ni gawaayatun aw hayamaan fii kulli waadin aw firan wali amaan mm-hmm. nga xam ne jëmmi yooyu yi nga xam ne mooy sikki wax moom moom yàlla musal na ko ji li mu way itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla kese moo xam ne mu toll waaye teewul itam gisul loolu lépp dalaa wax ne moom lott na lakin ajaztu amal tamastu wa ma madaxtuka shu'ara غار مدادي حار فؤادي عن مدهادي للبدلاي فكيف أحوي مدحا للمحي والمدح معي للعقلاي يعني يلا فايل نكو تاسني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سرين أحمد مبكي دار moxti آه، امنا ني مبكتي بو باخ باخ baax وقتان وي wi كو nga ko دي سانت يالا بو باخ bu بام ني bam اك شيخ الخديم mu ràññeeku lool ci diggam ak Yonent bi sallallahu alayhi ci ak cofeel waaye itam ci wax ko lu ko kenn musta wax ndax mel ni jiituwut ci waxkat yi euh, wax na itam ci ñi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon naka lañ daan wayee wala lañ leen am jublu jublu gañu amoon ci way gañ daan way ñañ daan way waaye Cheikhul Khadim moom loolu dalu ko waaye mel ni ki ci way ak tagg Yonent bi sallallahu alayhi dem na ba mu doon léppam doon na manhajam doon na sunnaam doon na shariaam doon na ak dundam doon na itam lii taaram bi koy taaral bi taaral àddina sax mënees na ko wax waaye itam mu am ci itam ay xasaayis yoo xamante ni tudd nga ko ay jagle yoo xamante ni ci way yi sëriñ Tuubaa daan way yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ci way yooyu rek nga koy nga koy fekk kon daal dafa mel ni kon sëriñ bi bu ñu doon wax daal dañ naan sëriñ Tuubaa amul morom ndekete ci way yi nga xam ne daan na ko way yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam naka noonu ci ak cofeelam itam ndax dem na ba egg ci cofeel wax ne xaddi wiqaayatun لرجل المجتبى عن شوكة أو ما يداه العقربة لول تام داي ورني اك تيوفال غوري ري غوم امون سي ديغنتي صلى الله عليه وسلم با تخنا بودان جيل خليمام دي بيند دي واي سانغام با جومبالنا تاغ كينن كو بوكوت سانغام با لول رك داي ورني واي كات لا بو خامتيني خليمام يندي صلى الله عليه وسلم لاي كون موك يين نيغا خامني يين اندو نك نين غينا با جا جيفالي بو باخ باخ سيرن احمد مباكي ديكو نيال سيني بروم غن سام بو باخ باخ تي ويرل كو يوكاي وقتان وي يالا ديف كو ميزان الحسنات waaye def ko itam mu doon ngërëm loo xamante ni danañ ko làq bàyyi ko ci sëriñ bi ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci suñu borom itam mbokk yéen itam yàlla nañ ko bokk ak yéen di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.